kii ne woon na ko di nga bëri lu métti Bébé Fass Bébé Fass fede seen na yor ne woon na ko bul xaab sama tuuti waay bi ay bu bés ba bu ñu dajee di nga xam ne jaan tuuti la waaye am na Dakar Bébé Fass Pape Gouye Gui Bébé Fass Pape Gouye Gui Bébé Fass Pape Guy gi eh Pape Guy gi eh Pape Guy gi moytul Bébé Fass newoon na ko bul ma xeeb moytul Bébé Fass Bébé Fass la guerrier la Bébé Fass Guy gi ñu ngi bëre bu rëy ñu ngi bëre bëre naa eh. ay ah waay ñu ngi bëree waxoon na ko ko signature ba waxoon na ko signature ba tuuti naa ba ngeen di ma xeeb mais bu bés ba li xam ni bokk maak ñu tuuti ñooñu waxoon na ko de waxoon na ko ne woon na ko bu bés ba xam naa ne xeeb nga ma nag jàpp ne yambar laa waaye ba bes ba laa yaa nga fa woon bu bés ba ngay xam ne am nga client Pape Gouye Gui Bébé Fass fax dóor ba baaxul dajawaat na ñoom ñaar Bébé Fass Pape Gouye Gui Bébé Fass a ngi dóor mu koy sigil mu koy sigil da koy daan da koy daan da koy daan mu ngi génn Pape Gouye Gui ngi génn arbitre bi na waxoon na ko mbay def ko ko waxoon billaahi wallaahi taala